Teuss Teuss ci Zik FM di journalu faits divers yi suba su ne huit heures et demi jotee altine ba àjjuma Teuss di xew-xewu jamono ci biir quartier yi man way naa laay yore dem nga bay ma man way naa dengan terdamai Mana waina lain Yo da dam go bai ma Mana waina lain Yo da we terdamai Yo da minyo salaamualeykum. waaleykum salaam. siif na ko tey da nga da ngaa ndekki pare. da nga nekk ndekkee gu ma sax de. awa sekk wala kii daal wala ndey faat ku ma ci dégg daal maa ngi lay wantit. da ngaa suqali wala danga ngaa daggalu. ñu ngi lay laat fii. yittewoonal la la wala la ah? ma ne ko da ngaa suqilu da ngaa daggalu wala da ngaa waaslu. est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que wutul ndawal. Ah, ah. daa mel daa daggalu de. yéen dibiteer yi ñu sagal daal. Ah, kay ndawal la wut de. Hmm. awa sekk mbaa day faatu daal. ah day faatu hmm. wala awa sekk day faatu. soxla nañ leen fii. yow Mantoula yow xaaral ba ma pare. <laughs> yow suñu contentieux maag yow il faut ñu lijjanti ko da ngaa daw. mantu lay dawul. da ngaa daw non mantu daa xaw a jagal dawul. dara jotu ko. mantu dawul. mantu dawul. dégg nañ ko revue de presse. Ah, waaw ah, xam lan moo ko téye ba dégg ñu ko tës. ma nga noonu. ah, ah? ma de. xam nga lu rek dawul. parce que ma ngay taw. ah ah ma ngay taw te mu ñëw def revue de presse. dégg nga waxtu bi tawee daal. ma ngay taw. le climat est clément. te xam nga. dafa propice bu clément voilà dafa propice. <laughs> te dégg naa daa am cuuraay yu bees. yu mu taalagut yu mu génne. yu mu daaj paquet ci paquet moom la taalagut. waaye loolu du la ci génne de. da ngaa daw. yërëm naa Papa Ndoye. Papa Ndoye kay. wa rahmatulahi taala. groupe Nokos. mbay au surtout Sana Ali Jongaay. ñoo ngi mbaay moo ngi nee ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi Sana <laughs> ne Ali Jongaay maam ne ma ma nga ne. ne ma ko benn yoon ma nga ñoo ngi nii toog te bu ci duggee mu démissionné. waaw ah? te dugg na ba pare. xam ñun géwél boo da lay jëli. waaye mooy maamu mopp sa ab sëriñ. te yow nam nga nekk moom. wax dëgg yàlla ok sa papa kon jinne la rek yow. Eh, déedéet kon léegi bàyyi ma nekk man ma dellu ci may sax bi liggéey doo ko nekk de. ah doo ko nekk de. bàyyi ma dellu ci euh, euh, mbéyam Guèye Diouf ak Abdoulaye Fall. xam ngeen géer ñi da ngeen a. da ngeen a yàgg dégg daal. may sax bii ge. waaw may sax bii ge. waaw bàyyi ma dellu foofu rek. lu lay tàggee sax. cekkeen ak mbaaw. cekkeen ak mbaaw damaa bokk cekkeen ak mbaaw. ah man fekk fa la bii ge jógee. yow li naka fekk ji may sa sa dàggu. Ah, bokk nag sekk ah. man sekk laa sant. Oh, dëgg la moom i sekk la sant. waale ba laa ko sekk sekk te ay géewal lanu. waaw fi nga bokk surtout Aliou Dior Ngaye maam Dior Ngaye. te moom eh, xoolal keroog daal laay toogaa sama bàjjen mi. baax na non nuyul ba pare ma yegg dikk ci waay wi. <laughs> non way woo ndekete. sama maama mu Moussa ah, Absa Ndiaye Mbaye. c'est daf ma moo tax du eh, du ma su <laughs> <laughs> nuyul ba pare uh-huh. ak ak Coro Kuli Absa Ndiaye Mbaye. ak Ñoxor Kuli Absa Ndiaye Mbaye. Birima Daali Ndiaye Mbaye. moo nekkoon seen maam moo daan way taayaani dammeel ya du ca kanam maa la wax lii 33 gu mag ay déet waay ah, maa la xam bi laa doon andi surtout surtout sana Ali Jongaay de moom bu yorut xiin a téye xiin ñu laaj ñu bëri dama leen seen loxo dëgg yàlla <laughs> dëgg yàlla te nag li tax li tax ñu daan rey géer ñi dino di bàyyi géewal xam nga ni seeti jinne xam nga ni seeti <laughs> jinne dee su ko gis day bëri waaw ah, day bëri fem day bëri fem Sidi Djindé. day bëri feem doo ko gis. ngéwél daal bëri feem. d'accord naa loolu. ceeb bu neex ngéwél. ah. jeeg bu mat sëg. ngéwél ngéwél. ah sañse. ngéwél. ambiance. ngéwél d'accord naa ci loolu. góor gu baax ngéwél góor gu mën kër ngéwél. waaye jinne moom wax fa dëgg neex yàlla bàyyi bàyyi ko yéen <laughs> mbay moom ay jinne bu duggee wa barakaatu hoo hoo mantu laay ci bundoy laay maxtaar laay seydina laay isaa mi daw tey hmm. daa daw de taalibe maam seydi amul benn excuse hmm. leer na ma ne hmm. Papa Ndoy moo la kot rek nga ne ay ca <laughs> liggéeyuma rek ah, ngi mantu ut la muy taafantoo mu baax Simer Diop bàyyi Serigne Saliou ak Adja Chéri Penda. Hmm. sama ban ni poto. moom nga àndal benn carte laa am. yow daal maire gàddu bu la bëgg a jëloo Simer rek. dëgg neexul nag. burux burux euh, hmm. lu. burux na nga def. ah ah kon jubóo ngeen. ah déedéet ah, wuñ de. ah xanaa gisoo ni mu nuyee. non gisoo nuyoo nuyoo bi kat. seeral ko. Euh, burux burux na nga def burux burux def. ko nuyu nii. ba jàmm nga fanaane. Euh, il paraît qu'il pleut. Ah, ah. ok mm. Euh, à, à la cité kër góor gi mi ngi taw. Hmm. ah waaw waaw waaw waaw. woy dëgg neexul nag moom ah yow. moom tuwarkaal yee kenn du moom. kenn du yow. ah kenn du moom maar yaasin messi bi messi bi maar. mbaax sa yëfa. mbaax yëfa moom. mbaax sa fasa. fasa ah, yaa nga ko war yaa nga koy dañan. ba mu ko waree ba mu ko waree yow de fasum naaru góor nga. waaw ba mu ko waree ba mu ko waree déedéet mbaax rek. nañu xam ci maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu moom it dañuy sekk sekk jërëma ci mbéy. ndax sekkeen maa sa biige waaw waaw. xam nga kan lay wax foofu. Hmm. ki jàkkaarloo ki tese woon ak maam Kumba hmm. sama maam. sama maam yow mii. gis nga Maysa. Ah. Euh, bu dàngu. Hmm. ah. moo maax Mbaye Ndiaye mii muy waay di si waay bi di continuer naan Mbaye Ndiaye. Mbaye Ndiaye ma waaw. mbay Ndiaye moo naan kan baalal ma. damaa demoon biir jokkul. bëgg fanaan biir dàngu Mbaye Ndiaye moomu ak Maysa. ñoo bokk ndey ak baay. Maysa Maysa. Mhm. ak Biige. Mhm. ñoo jur sam papa. Ah? tuwarkal. Mhm. Masamba Ndiaye. Ah. Maysa Biige. Ah. tuwarkal. non Maysa Biige sama maamu sama voilà man maa ngi juum. sama maamu papa voilà Maysa. ak biige biige moo jógee mbaaw sekkeen sekkeenu mbaaw bu sëriñ Mansour fekk ji euh, may sa sa dàngu te dàngu euh. kon yow euh, masam may sa moomu mm. mbay njaay mii ñoo bokk seen day seen baay tawarkal très man ci foofu laa soxee foofu nga bokk foofu laa bokk waaw fa nga li ma boole xombal moo di mm. sam pap papam mm-hmm. mooy Masamba mm-hmm. la ñu affecté xombal mm-hmm. juddoo fa doorkal looloo ma boole foofu. foofu looloo boole ko li ma boole jokkul. Ah. Mbéem Gueye Diouf. ak hmm. Abdoulaye Diouf ak Abdoulaye Abdoulaye Fall. Hmm. Abdoulaye Fall Mbéem Gueye Diouf. Hmm. Mbéem moom lañ daan wax. làmp njóoreen ndax taar ga nekkoon ca moom. xeet bu weex tal taar làmp njuureen laa la wax nii. Eh, ah, ah. làmp xees ba lépp. maa la di samay maam. en wax nga sa maam yëpp daal teewul nga génn ci ngéwal. ngay Diouf ak <laughs> su ah. ñoo bokk seen saari Diouf. Astu Diouf góor gi Njaay mi ñu jooyte noppeegul mooy sama paap. mbéyam ngay Diouf. jur xarjata faal mi ci gi. soreetu ngéwal di di di di yaay. ñëwal ñëwal rek. xanaa kon maay bete bete. sama baay mooy sama ndijaay. bete bete nga kay. fa laa doon bëgg a jëm di bett ka tout daal mbay wax nga lii lépp mam mbay waaye teewul nga nga géwél gi jalis la de <laughs> jalis la moom ali jongaay nga de <laughs> sana ali jongaay surtout sana ale jongaay nga de surtout ali euh, déedéet jongaay moom moom wax fu dëgg neex yàlla baal naa la kanam <laughs> mbay mm. surtout ma bu soo mën nañ ko bokk ah. waaw waaw sama jigéen bi sama xarit bi Eva Tra dama laa nam Eva Tra maa ngi koy seetaan keroog maa ngi nuyu borom këram monsieur Diagne di sama mag ju baax di sama xarit mhm. mais grand neel Eva namm naa ko nag namm naa leen de euh, foofu na tey nag euh, anniversaire wu Ama Balde yii mbër mu mag bi waaw nga ah, xam waaw umu si umu mu Isaaxa Diop moo moo ni ma naa ko souhaiter euh, joyeux anniversaire donc mi ngi noonu euh, Ama Balde le grand champion. ah waaw waaw mbëru Pikine. mbëru Pikine. doomi mbër jàngil bëre yàgg yàgg des na la ma. fierté Pikine di jàmbaax lool moo ama ah, bëgg lool Pikine nag. Pikine nag lay dem yow Falaye Balde mooy sa baay. wallaay waaw kay. ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire de la. di jàmbaar ci làmb. jàmbaax lu baax lool nag. neex a faral dimanche kenn du yow. Eh, bu tuusee nga kontaan. billaay. ama bu njuugee nga kontaan. billaay bu bëree nga kontaan. kenn du moom ama kon nag ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire. na daf ma ko awa ama xam nga ko moom ndeysaan waaw. ama balde rek lay nooyee bu bu bu Sidi bu Sidi Diop <laughs> wax nga dëgg mi ngi noonu yow xam nga awa ama baax sama xarit la de suñu rakk ju baax. sama rakk ak bëgg ak bëgg ama waaw te fu mu far fu ne nag. Mm-hmm. ak am engagement. awa mm-hmm. ama. day joxe lépp te am détermination. day lépp ku mu àndal da ngay xam ne yow nga àndal. du tricher du tricher. Mm-hmm. man fu ma gisee Papa Fofana la. ndax yar gi. Mhm. yal la suñu borom sàmm. amiin amiin Ama Balde nag moom kenn du moom. déet ku baax. ci kuy dundal lam. kuy dundee lam. Mhm. waaye mhm. kuy gën a jëmmal lam. ku gën a ndax Ama. la doon wax sànq. moom ak ñoom Balla Gaye ñoo yam. xaalisu lamb. nañ leen gënte gënte loolu doon mu dëgër. ba pare deret mbër bi mbër gi ñu doon. Mhm. daa nekk seen deret. Mhm. dëgg la bu kuy sa baay ñu ne la Faalaay Balde Faalaay Balde kenn du ko tukk présenté Sénégal. dëgg la de. ñëpp ko xam. wilaay dëgg la. moom Ama. Mhm. doon na bàyyam ci lépp. ci lépp ci ngor gi ci jom ji. ci jàmbaar gi. ci fit gi ci fit gi ak ci mbaax gi. ci mën bëri gi. Mm-hmm. ama mbër bu mu gu lekk avance am. Mm-hmm. dootoo nelaw. déedéet. parce que xam nga du mbër muy reculer. déedéet du daw de du dellu gannaaw de. ak noo mënti toll toll toll toll. du dellu gannaaw du dellu gannaaw. Mm-hmm. ci mën géew. walay dëgg la. ci mën ay déplacement am. waaw tabarkàlla. ay doxalinam. mën bés. ama ci mën bëre. mën ambience ama ci mën ambiance. wallaay dëgg la kenn du ama balde. foo foo kupp mu baat rek. Ah, waaw. noonu nag nga mën a mel. si ah, waaw ndeysaan. yow goney Pikine nga. Ah, waaw. goney banlieue nga sagu banlieue nga. ndeysaan en tout cas daal ñu ngi koy souhaité mu dund Oumou Sy daal moo fa jaar. ah Oumou sama xarit bi ndeysaan faaw nga. Ah, nga souhaiteel ma happy birthday ki nga xam ne mooy sama sama sama champion bi di di Ama Baldé waaye nag maa ngi koy nuyu bu baax baax waa Milan ba tey di ki nga xam ni eh, ndeysaan moom mooy Yacine si madame juuf ah moom yaay Macky mu ndaw ah, doom ji Macky nañ ko tuddee Macky nañ ko tuddee waaw donc ah. nag eh, moom mooy borom këram mooy Lamine juuf di conseil bu Milan tarkala image bi baax na ummi si sama xarit bi. nuyu ma sama yaay ji nu mu sax sama yaay ji ndeysaan ah sama yaay Ayda Thiam ak a baax Thiam Babel Demba am nañ seen beneen mag mami koo xam ne sama xarit la moom Thiam Demba Thiam Demba lool Thiam Demba xam nga nag moom suñu yaay Ayda sëtu sëtu Cheikh Omar la euh, ah, Fuuti Taal l'honorable député Adjaratou Mame Diarra Fam waaw Mame na ngeen souhaiter ko joyeux anniversaire a Baldé ah, ah ndeysaan ndax yow Ama Baldé doomam la doomam la nee moom kenn du ko ci boole ci xew bi yëfam la samay maam jaar ak a baax. waaw l'honorable député a Diop maam jaara faam nga xam ne war nañu ko ziyaara ji. waaw waaw war nañ fa dem wax na Màkka waaw. war nañ fa dem. yow yaay booy faaw ñu dem ziyaara la. xam naa moom tamit Ama Balde nag moom yàgg moom. démb la démb la. tey di doog a ñëw. benn bis doxul seen diggante su sunu yaay maam jaar nag man leen laa ko jàppee. fafa na xam yàlla mën na la mën na laa dimbali nga nekk ci dëkk. wallaay di fa doxal yàlla may la wërsëg ngarañ say bagage ni may. dëgg la waaye suma ma yaay maam jaara la mu tabax gannaaw raay. Mm. nekk gannaaw raay toog fa. comme ne bëgg naa gannaaw raay waroo ko weddi. wallaahi ndeysaan. loolu yàlla bëgg naa gannaaw raay. dëkk si dëkk ku ne bëgg naa sama gox. boole si defar ba mel ni suñu yaay maam jaara. ah wax dëgg yàlla war ko weddi kon nag yaay maam jaara dundal. waaw yan yaa defal la jàmm kaala googu yal na nga dem. téeméeri mag moom kay la mu dem màkk sax daa bëri keroog maa ngi ko xanaa nga ne léegi moom de dina réussir yaay booy <laughs> yow rek ak la nga am <laughs> ma man ma dem màkk lépp bilaay ndeysaan min màkk mais ziar baax sax sama sama sama yaay jaratu jaratu Awa Dieng moom ba mu jógee màkk sëriñ yu bëri la man di kenn du moom euh, sama sama rakk ji Khadija borom bisik jóge na bisik góor gi ba léegi mi ngi bisik xaritu Chimère Diop léegi mi ngi bisik caaray moom baatare na ma ndax Seydi moo fi wax sànq. sunu papa ji ak sunu yaay ji. Euh, Alassane Sow nee na dafa réer les permis carte grise carte nationale d'identité assurance oto max moto. Euh, képp ku gis euh, kayitu Alassane Sow yooyee nga woote ci 77 632 41 93 77 632 41 93 Thierno Sarr taximan la nee na dafa for benn valise bu nga xam ne ay yére moo xam yu góor ak yu jigéen ay yére yoo xam ne ay dara depuis lundi nag for ku yaakaar ne yaa moom yooyee wooteel ci 78 331 04 13 78 331 04 13 yow da ngaa jub bu doon ñeneen lal nañ ko def ko fëgg jaay bu yàgg. Mm-hmm. Saliou Sow moom la de nee na moom dafa de dafa for rek benn sac à main bu nga xam ne nag yow kenn gënu laa jub nee nañ xaalis bu takkoo nga ca. fort somme d'argent. mbaaru ay lunettes. peeru dàll. loolu depuis le 23 mois. mais ak a gore taximaan danoo gore nag. Sali mi nee nag képp ku yaakaar ne yaa moom koppar boobee peeru dàll boobee lunette beex euh, euh, euh, daanaka lépp lu ñu nekk ca biir wooteel ci 77 752 66 30 77 752 56 30 ku la waxul som bi bu ko jox faatu fay nee na dafa fàtte ab saagam bu nekk ci couleur bu ñuul diggante Gaspard Camara ak Fann 76 mooy numéro am 121 01 48 76 121 048 wala 76 889 16 63 loolu nag daanaka euh, ku ko ku jotul nga woo numéro boobee ki moom moo di Kumba Faye Fallou Ngom mi ngi toll ci fukki at ak juróom-benn saison mi ngi dëkk euh, fii fan la Ngunjaan dafa réer mat na léegi benn semaine yaayam Abi Sarr papam Ngom Mor Ngom tur bi siiw na de 77 8 78 668 40 99 78 668 40 99 wala nga woote ci 77 620 10 67 77 620 10 ngir képp ku gis Fallou Ngom boomee nga xam ne mu ngi tollu ci 16 ans mi ngi dëkk ca euh, euh, Ngoundiane jaajëf madame Dicko ñu koy nuyu bu baax waaye. bu kanam borom kanam. kay ñu yaa piment dankana yaa piment dankana suñu bàyyi ja le vingt sept koy ñaanal bay di sëy ndeysaan suñu papa ji waaw ci lay am ñaari at ci suuf ndeysaan mbaax rek la ñuy jooy ci moom yow yal na yàlla yeesal yërmande ci yow amiin ndeysaan yal na la yàlla yërëm te xare la ci àddina yi gën a kawe yow sa mbaax ñi ñi ngi koy jooy ba léegi ndeysaan yow waaye ñu ngi lay jooy ba léegi noppeekuñu pikin nag noonu mm-hmm. banlieue fépp foo dem ba dëkk dakkaan yi foo tudd bay di sey buñ la gisee na la maa ngi lay dégg ngay wax. ndeysaan ci lu baax ci sa papa jooju. ndeysaan ak a baaxoon. te doo leen sax xam. Ah, ndeysaan ñun am nañ yaakaar lool ci yow. wallaahi ndax sa mbaax. Mhm. ndax mën a dimbali doomu aadama. yow boo tabaxul ay sato nit ñee tax. Mhm, loo am jox nga ko doomu aadama yi. da ngay xañ sa njaboot sax. di teral nit ñi. ndeysaan maa la wax lii. donc nag. maa a nga noonu. man sama doom bu mujj bi ma xam nga léegi am na trois ans bi ma koy du ma a ngénti sax tudd. Mhm. ndeysaan laajal euh, Mamadou Fofane mii. moom ak euh, Ahmed may dégg ñuy wax per Baye di Sey rek may wax Père Baye di Sey bu ñu taxee matinal sunu papa Père Baye di Sey di ko nuyu noonu. man daa yëg maa ba jour tudd bi jot. ah imaam yeeg ñu toog ñëpp. maam ko moo téléphone xaw ma numéro xaw ma ko mosuma ko gis ma nu ma la wax kii mooy Père Baye di Sey. mu ne ma décroché ma euh, mu ne ma kooka la Mambey ma nekk waa man la kay kookan la mu ne ah numéro bi de xamoo numéro kan la te xamoo it ki lay woo xëñ na yaa ngi koy wax waaye xamoo ko ma nekk euh, waaw mën na nekk de mu ne ma la sa papa bay di sey rek ma taf sama gémmiñ ma ne ko père bay di sey mu ne ma xoola dama ñëw ba ci rond point Tëngéej mais xaw ma fan mooy sa kër imagine dama dama dégg démb bi ngay tàggoo nga ne da ngay gàmm ma xam ne da ngay tudd ma bëgg ñëw sa kër mu def délégation bu rëy mën a sagal na ku mu àndal ku ne sagal na la nii la ma ko defalee moom la laalaay so may wax moom it la même chose Bamba daf ma woo ne ma Mambay maa ngi ci rond point bi moom xam nga ñu su bëri xam nañ ne côté boobu laa jëkk Bamba Fall maire bu Médina moom loolu laa ko jàppee ba léegi la même chose maa ngi ci rond bi ma ne waaw yow foo jëm mu ne ma yow nit dama am fu ma war dem léegi ma ne manuma fee ñàkk jaar nii la ko defee donc wallaay ñooñu mu fekk de sax jooy nañ ko ndax heure bu masaana xëy këram gu mu mënti ay bu fa hmm. jógee balaa muy ñëw biroom armée li leen jëkk moo demoon ban ba bañ ko tuddee sax président néew yi du ko rëccu de dem ñaanal leen ñaanal ay woy juróom hmm. ñaanal fu boppam fu mu tëdd nii tey kam fa fekk ku ne mu jox la dépense taal otom doo ko dem mairie ba hmm. loolu du tëbal de bés bu ne lundi ba dimanche loolu lay def xam nga kooku kooku kooku kooku mi ngi doon préparé démbam. laa hmm. moom. day na waar. tës bi nag tey Touba la de. Touba sama dëkk ba sunu dëkk ba. Ah. ñoo nekk ci wàccaay ak màggal démb démb tu Touba la woon fa lañ ne woon borom oto. waaw bi waaw tey dañuy delluwaat. Touba nag tamit Touba moom. tey dañ fay delluwaat nag dañ fay delluwaat Omar lay nuyu bu fekkee man ngay seet maa ngi nii. Omar Cheba sama waa Cheba nee na man ngay seet damaa réer. jërëjëf ba Cheba jërëjëf amul benn problème. test bi tey Touba la. waaw. te mënoon naa xew fu nekk ndax fii ñu toll ñu démb ñu ngi koy waxtaanee Mamadou Fofana suñu wàllu tabax yi. wax nga dëgg yow. Oh, jëy dafa am ji effondrement ba fa am. Oh. Pape Iba Baar man démb nañ ma ci faatu sax. ku ci nekk ak yooyu. Euh, bilaay sama euh, mag ju baax ji di Tidiane Kunta moo ma ko yónnee Tidiane Kunta bu Géejawaay bu Njaasaan way way mooy mooy tur ya sax chantier ba daanu waaw chantier ba daanu ku ci nekk ak at ga mu tolloo ak xaaral kay léegi papi babaar Guet Ndar lay nuyu bu baax waaye euh, xam nga nawet bu xasaa ba dikk en fait moom sax kër googu chantier la ne mais dañ koy faral di gis ba ci Medina gi souvent kër yi fay daanu dafa dafay dafay xaw a bari maire ba nag mu ngi si doon def jéego wala état laay wax dangay gis nawet buy waaj a ñëw. mi ñoo xam ne dañuy xolli kër yi. Ah, ñeent fukki at la ki si gaañu ah, ñi si gaañu waaw ñett lañu. ñett lañ moo ñu tegoon ci ci taatu kër gi doon reer Caada fukki at. mi ñoom ay xale nañ. ay xale la ndeysaan. oh ki ci amee gaañu gaañu Yacine Diop fukki at ak ñett. Mhm. Ndeye Daba Diop. ñett lañ moom ñetti at la am. oh njaboot la dañuy. njaboot la famille la toog di reer reer kay bu ñu koy wax famille toog di reer. toogoon yàlla ni leen seen reer bu du egg. benn pan miir bu rot. dinañ ci dikk ñoom nuñ ko dundee. yàlla suñu borom. waaye kër gu nekk ci chantier. ba xew ma sax boor boobu. dégg ma waaye nanu xoolaat. nee na ma examen bu musaan a am. bay bay di sëy moo doon joxe ndekki yeeg añ. yëpp. du ko réccu de. nii nga xam ne moom la kii daan def lu baax moom kenn du ko bi nu mu tudd. maire bu Fann point E bi. ndem si yàlla euh, si Baye Fall. Paala Paala Samb na mu daan def xam nga ne du ko réccu de. ay ngëneel lay soppe soppeeku foofu mu nekk kaa buñ daan am moo si giit ak sa waaju Omar Sow Omar Sow Omar Sow daanaka def lu baax rek am solo ñooñu de dañoo war di jàng def lu baax rek moo am solo yaa ngi moom ba léegi waaw waaw après après nga jox ma boobu ñu dugal ko waaw du defaroon nañ ko ah joxal ma ko léegi ñu ñu dem Touba après bu ñu fa jógee doog ñëw ci boobu waaw léegi Euh, Touba kër gu nekk ab chantier la de mu jékki-jékki. benn pan bu wadd dal ci kaw ñi doon reer. ñett ñoo sa faatu ñetti jële sa ay gaañu gaañu foofee la ñuy dem. ñu xool askan wi lañu ko dundee metti na torop torop torop torop waaye dañ si boole gëm yàlla bu ñëwee nag. Oh. ñu dikkaat ci yenn xeetu liggéey yi nga xam ne moom la ñuy fee waxuma ne looloo ko sooke. parce que xaw ma nu ko tabaxee xaw ma chantier bi ku ko yor <coughs> peut-être ndogalu yàlla la waaye parfois yenn ndogalu yàlla it. Hmm. loxo loxo nga ca loxo nga ca loxo nit a nga ca. ayca ñu dem euh, Chimère Touba ñëwaat. man maa ngi tudd Modou Diop. dëkk Daara Mam Mor. di mag ci Cheikh Diop. ndax mën nga ñëw ci xam na ci Daaru Maam. ah musiba Baba Kumba de euh, li ma si mën a wax daal. mooy fu métti di àgg àgg na fa. ndax euh, kër gi mu xewee. maa moom noo bokk benn baay. man maa seen xalifa baay. biig bi mu amee. lan ma woo téléphone rek boobu maa ngi ci dëkk bi sama mag moo fi gaañu woon ma ñëw ci saraxam lii bi këpp wat suñu kaw waaye lépp day gëmb yàlla ni bala ñëw foofu léegi da ñëw ci mbir mi bi muy am na naka la amee mbir mi daal ni bi muy am ni mu amee ma daal damaa toog ci fa sama kër nu woo ma téléphone ni ma kër Cheikh Diop gi de am na fa mu ne accident bu daa amee nan neen ma ne néeg yi ñu ci kaw fi ñu toogoon di reere benn benn boor bi moo daanu seen kaw bi loolu ma daal di jóg bi dikkee fekk naa kër gi fees dellu ko nit fekk naa police fekk naa sappoor kilifa yu bari daal fekk naa dëkk dëkkandoo yëpp ma xool ko muy doon lu métti li lool lool bàgg ci lool waa nag ma wiñu ko santaat yàlla ndax euh, bi bi ñi ci gaañu waa kër gi yëpp mën nañ cee bokk ndax man maa ngi ñoom naa daan bokk reer bu ma fi masaa ñëw mu fi ñëwee maa ngi ñoom nooy bokk reer kon bu yàlla dogalee bi ñu kaw mi bâtiment bi bâtiment bi daanu seen kaw loolu sant ko yàlla ndax ñaar yi génn doxantu ji ak nekk seen kër maam ak man mii ñun ñëpp mën nañ cee bokk ndax noo daan bokk leen dab di reer kon nag bu yàlla dogalee ñii rek noo ci faatu fo ñun loolu sant nañ ci yàlla ñett moo ci beleese ñett moo ci beleese nag yàlla dogal na yóbbu nañ leen hôpital ba defal nañ leen ay garab ba di lu ci waat nañ leen loolu foofu eh, ci bi nga ko xamee foofu la toll bi yàlla dogalee itam eh, ko Abdoulaat Ka ak commissaire bi ànd nañ ñëw fi taxaw na dox nañ ci ci nan ca war a taxawee boobu ba léegi maa ngi ànd a ñoom nu ne ci naaju dem naa police ñaari yoon ànd ak ñoom nu dikk taxaw fi nu xool ko métit lu ko métit nu métit lu ko lool ñi ci ñàkk seen bakkan ay góor lañ wala ay jigéen ay jigéen lañu ñaa astuloo astofal moo si ñaa astofal naa ko astu nger nger la sant moo si ñàkk bakkanam ki sees mooy kan yow xale yi dalaa ah caara ak ak Anta Diop ak caara Diop ñu ñooñu xale ñaari xale yooyu ñoo ci ñàkk seen bakkan astuloo de war naa am xam naa ñeen fukki at daal wala ñeen fukki at na ci am caarat war naa am fukki at ak juróom-ñett ki si gën a doon mag ki si des xam naa ne ay juróom-ñetti at wala juróom-ñeenti at foofu lay war a ñëwee gis leen noo leen gisee wax sa bopp ngi taxaw bi dikkee xool leen sama adduna sépp moo tukki waa ma dell fa yëkkati waat sama xel delloo ko ci suñu borom ndax lii yàlla rek moo ko man ku du yàlla mënu kon yàlla rek moo man te mooy def ah lépp lu la teg rek sant yàlla ndax yàlla coono bu mu la teg nëbb na la bu koob bànneex bu mu la jox nëbb na la bu koob kon lu mu la ci jox rek santal yàlla sant yàlla bi dal daanu seen kaw wala dafa ah, des mi fi boor yi yàlla dogal na mbaam bëggunoo tam bi nu woo borom kër gi yónnee na loo xam eh, eh, ndax xaw ci yéex teeloon na jël ay matuwaay ah waaw loolu man waa wax mu tukki kat eh, programme am na nam koy la bëgg ak lay am doon doon benn lenn ni ni li moom xam nga ne bu xam ne lii ci mujj du ko def euh, ndax kon fu ñu solee fu ñu tegalee juróomi birig sol bu ñu tegalee waate yeneen sol waaye nag foogu ci woon lii ndax lii moom gu leen man man maa ngi koy doog a dégg dañu gis ci suba dees na sol ndax yónnee ah, a sol tey moom mënuy su lu passé suba dees na ko sol bi soobee kay musuma koo dégg musuma ko fee gisee gulee tey gulee lu ngeen di sàkku. lu ngeen di sàkku. lu ñuy daal xanaa nu jéem nu jébbal koor yi nu jéem jébbal ko seen borom ak état lu mu nu ci mën a ak yéen ñi xam yéen ndaw yi lu ngeen lu ci mën a jàppale rek ngeen jàppale ko ko ci. looy waxaat ne ñu fàttaliwaat leen ci wàllu bâtiment yi nii lu yan lañ ci war a jël ku bëgg a tabax. Euh, léegi waa wàllu bâtiment yi daal ku bëgg a tabax bul def moom ku la ne maçon daal nga jox kooku seen entrepreneur mu di ko jëndal sa plan comme jënd plan bu normal seen entrepreneur di ko jox kooku kenn ndax ndax tabax Euh, ferrailleur maçon peinturekat ñii ñu seq tabax bu kenn ku ne boo jëlee ka kenn ka nga jël ko jox ko ko yàlla ma naa dogal euh, benn benn jiyee du si am waaye booy def ku ne mën mu takkal sa fer wala euh, nga fekk am nga gis a bâtiment mu taxaw rek nga ne man plan bi li si kaw mm-hmm. da moom yàgg moom mm-hmm. looy tëjee. Hmm? looy tëjee ah xanaa dellu sant yàlla di leen sant rek ndax coono bi ñu ba ndax ndax yu bi métti na diis na sama kaw am naa ci wu naqar waa nag wayef na tooy ndax yow mi jógee Dakar ba fii ndax dégg lii xam nga ne yow yëf yi yëf yi eh, métti lu nga ko yëngu ko tam kon bu ma yenu woon kilo yenu nga liibar kii yenu na liibar kon mel leen man ngeen waa liibar laa yenu kon de famille bi nu ngeen koy dundee fi nii famille bi nu ngeen koy dundee mooy ñii daanu bâtiment bi daanu seen kaw nan ngeen koy dundee yéen famille bi ñun famille bi ni ñu koy dundee ñun famille bi kay ni ñu koy dundee daal mooy fi mu ne daal ah eh, xam daal lii la dogal suñu borom la fexe ba duut duut duut amati métti ci biir famille bi di ñëw nu yàlla moo amati feneen di daal moom mooy dund bi ñëw nu yàlla moo amati soxna Ayda Lo mbir mi loo ci xam loo ci yokk rek man maa yaay Bintu Lo soxna Cheikh Diop dëkk Jannatu ah mbir mi moom dis na lool métti di egg egg na fa ndax man mii sama doom mooy ñaareelam asufaal mii mooy aawa bi ne ci kër gi ñoom ñaar du nu woon ñaar kenn lan mbir mi nekk fi ko yàlla dogale mooy bintu toll na diggante moom ànd naa ak beneen ki keneen ki nga xam ne moom doomu wàcc na ci muy penda mu gunge ko mu dem di doxantu ji asufaal tabaski ba tey sukkul reer yàlla dogal te li yàlla boole mook doomam ak beneen doomu penda ñu yàq reer ñu sukk di reer affaire bi wàcc ci seen kaw teg ci kaw moo wàcc ci seen kaw fekk leen ci boolu reer bi fa yàlla dogale akub dogalam ñoom ñett ñëpp fa la ñu wàcc ñett ñu def blessé beneen xale bi bokk ak ñoom reer moo daw ñëw dugg ci kër gi woone leen sunu waa kër kii bi daanu na ci seen kaw te moom yàlla mënoon na ko cee boole waaye yàlla génnee na ko ci ñu xëy na ñu doon doxantu jeet bu fekkonte ne yàlla naroon leen cee boole yàlla boole leen ci bint bi nga xam ne tam waa këram ñu nga sama kër dippi àllarba ni tey lañ fa ñëwoon ne maam dañ daan na ma ñëw seet si la ñu nga fa moom moom ñu gaañu bokk benn baay kon ñu xam ne mbir moom jëfi yàlla la tey masawu nag ñu nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan di astu ngeer ak waa këram ñun ñëpp njaboot gi suñu genn njaboot la ñun ñëpp ñoo leen bokk jur. famille bi benn la ni masawu bu baax a baax a baax a baax yaayam mi nga xam ne moom la fi bàyyi ak tout tànkam yi ak seen borom kër bi yal na leen yàlla jox xolu muñ te xam ne lu yàlla dogal jaam da koy nangu ndax bu dul woon ci kër gi man bu amewul woon ni mën naa amee neneen ndax jiitu na seenub judd buñ deful woon kër gi asida mën nañoo génn oto laal leen te ko ni kenn du ci man dara yàlla nag moom mooy dogal te nii la ko dogale nan ko sant yàlla bu baax a baax a baax ki ki doon doxoon mbaar nga xam dafa nekkoon jigéen wér mbaar moom mbir mi xew fekku ko fi dafa dem doxantu ji. Mm. ànd ak yaayu xale bii. bi muy ñëwaatee dugg si egsiwul dañ koo kar ca àngal bale daal di koy am beneen meer moom a ko fatal mm-hmm. ca këram maire bu sant lay moo ko dugal ca këram ne ko kaay toog mën lu xew ñu ne ko dara xewul ba tey dugul kër gi mu tiitaanga jooju nag bi mu ko jàppee mm, démb waaw moom ki nekk jigéen juróom mm-hmm. dañ ko mujj démb ñu yóbbu ko hôpital bi ñu wisitoo vingt-huit mm-hmm. fa la ñu ko mujj yóbbu bi ba ca guddi lu tax ñu yóbbu ko tiitaanga rek dafa tiit moom xam nga jigéen wéru nga génne sa kër ñëw dem di doxantu ñëw egg fekk sa buntu kër fees ak nit moom la sax mënoon na ko caa mhm. waaye nag yàlla bari sutur maire bi daal koy ndaxtaan ndànk dugal ko këram jox ko ndox mu naan dalal xelam ba ma ñëwee fa ne wër naa ko ñun doom di am na ko ko maire bu ko denc ma bàyyi ba affaire bi jeex ma ñu soog ma koo wan mhm. léegi dama gis benn côté bi dañ dëkk ci bâtiment beneen côté bi euh, mhm. ñoom ñëpp ci benn bâtiment bi lañ bokk moom fi la ñu dëkk bi eggagul moom kenn dëkku ci moom bi egg rek ci la fi lañ dëkkoon. fi daanu maanaam liñ teg ci kaw. Mm. moom moo wàcc fekk si leen. Mm. waaye ñoom ñu ci biir. booba dañ doon reer. booba ñoom dañ ñoo sukk ci bool bi di reer. Mm-hmm. ñoom ñett ñooñu fa la leen yàlla moome. Mm-hmm. waaw léegi ana néew yi. ñu nga hôpitalu jànnat. jotagu leen si déedéet. Mm-hmm. jotagu leen loo ciy yokk rek loo mën a waxaat ci loo xam. ah xanaa rek ñu ko guddik tey gii ba fanaan si Touba mhm. loolu dong mooy leen ci mitti nag mhm. te xam ne nag yàlla moom mooy dogale noonu te lu mu dogal rek jaam da koy nangu mhm. ba mu wootee nee naa ko sant yàlla bu baax te xam ne jaam bu yàlla teg am nattu a nangul boppam moom kay mënut a sa wax wallaahi mënut a wax waaw muy Cheikh Diop ma nga Italie mënut a wax sax nag wax ci téléphone yàlla seere na ne ko mënu ko waa këram ñii nekk nekk ba rafet kenn mosu leen a dégg kenn mosu leen a atte mosu ñu benn problème wasalaam ci yokk mooy dañ ne ab dal la waaye du dal étage ñuy bu ñuy terrasse bu ñu doon teg étage la def miir ba jotuñu ko sol pato ay poto mu daan fekk leen fi ñu doon reere waaye du daal waaw asalaam. loolu nga ci xam. laa ci xam. mbir mi loo ciy gën a xamaat loo mën a waxaat. loolu de moom xam naa ko ci waaye nag xaw ma la leneen. yow bi ko yëgee. ko yëgee laa jóge sama kër dikk bi fi dikkee fekk naa kër gi fees dell ak aku nit ma dem fekk leen fi ñu tëdd sappoor ñëw. police ñëw ñett waaw ndey ak doom ak sëtu borom kër gi waaw loolu noonu la demee. yow bi nga bi leen tiimee noo loo yëg sa bopp. li ma yëg ci sama bopp nag wax dëgg yàlla bari na bariwul ndax damaa xam ne lépp dogalu suñu borom la li yàlla def moom kenn mënu ci dara ndax bu ko doomu aadama defan kon moom néew yi dana bari waaye comme yàllaa ko def moom kenn mënu ci dara foofu rek laa daal teg sama tànk ma ndax muri ku mag ki ñu ndaw ñu ñoom ñëpp leen muuraat leen métti lool waaw métti na lool wax dëgg yàlla ndax xam nga ay biir kum dal sa kaw dana la jërëjëf wasalaam waaw moo ngañ dañuy xam ne dogalub yàlla ñëw na te euh, jullit bi day nungu dung day nungu dogal nattu bi nga xamante ne dal suñu kaw ndax kenn xalaatu woon ni miir bi dina daanu si kaw njaboot gi suñu ko xamoon dañ koy moytu wala deesu ko fi def waaye nag dañuy ñaan yàlla sunu borom mi nga xamante ne mooy aji yërmaande mu def leen fan doon seen këru yërmaande joo ne ju kawe njort kenn ku nekk boo doon tabax boo ñaanee yàlla boo boo doon boo doon tabax ñaanoo yàlla subhaanahu wa taala tabax bi daanu sa kaw wala mu daanu sa kaw njaboot tey ndogal goo xamante ne si kaw jaamu yàlla yi te tabax bi ñu tabax da koy nungu lii kaw dañuy xam ne dogal bu ñëw nag ab julli da bu dal sunu kaw la ñaan yàlla sunu borom mu yamale ko fi te ñu fi des suñu borom bàyyi leen fi. ndax lu mel ni mas dégg de. Mhm. wax di ko gis. muy comme nii mu demee nii. mosuñu koo dégg mosuñu koo gis muy bâtiment fi daanu ñu koy doog a dégg. loolu xamaat xanaa di ñaan yàlla suñu borom ñi des suñu borom bàyyi leen fi te ñaan suñu borom ndogal gu mel ni suñu borom fanqal na ko ba dootul loolu la ñuy ñaan yàlla suñu borom. mbir mi waa dëkkuma ci fi de wax dëgg yàlla waaye mais sama mag la ñu bokk ndey mhm. wax dëgg yàlla fekkuma fi nag dëkkuma xamante nii moom la affaire bi dal si kawam. yóbbu ko ak yóbbu mooy euh, kii mool dal si kawam. bi euh, waaw terrasse bi dal si kawam yóbbu ko ak euh, doomam. dama xam si moom wax dëgg yàlla dal daal laa xam si moom baax yaatu boot ñëpp wax dëgg na baax na boot na ñëpp yaru na ko xamee léegi asfaal mosut a ñëw wax ma baat bi ma a xari. Mhm. wala ma ñëw mooy kii dal bi dal si kawam. waaw ki gaañu tey moom doomam waaw. Mhm. ñoom ñaar moom moo ko juróon keneen ki. moo ko jur waaw. Mhm. kon ndey ak doom la. ndey doom lañ keneen koo xamante ne sëtam la. jarbaatu sama nijaay si Cheikh Diop la dafa tàggoo woon ak sëriñam ñëw fi léegi encore doomam moom gaañuwaayam ku ñuy wax jaara am na juróom-ñetti at waaye wax dëgg yàlla xaw ma ci moom benn problème bu dul baax laa xam ci moom yaatu mbokk yi lu xew mu ñëw ba birki démb sama yaay bu ndaw bi gaañu woon fii ci côté Playe sarax ñoo ca woon di waxtaan di ree mooy wan si nag bi yooyu noonu wax dëgg bu ma ci waxee leen noo xamante ni nii lu ak baax ak yaatu foofu ma la am sànq may ñëw laa naa nit ki nekk bala nga xam dafa génn àdduna mm-hmm. lu tax nga wax loolu woon ma lu baax wax dëgg yàlla baax na yaatu na musuma woon kanam koo xamante ne tey ji Moustapha war na ma kanam gii bu subaa ma gis ko woon ma geneen kanam gu gi ma woon tey musta am dëgg rek ma tax di a ko fekki dëgg rek laay wax te mhm. ni ma fi nekkee ba léegi musuma dégg ma woote nee na musuma am ci asfal lu ma ko wanee ginnaaw mm. nee na musta am ci moom lu ko naqari bootal na ko oh, oh, oh, njabootam gi yiir na leen bootal na ko tamit encore jarbaatam bi fi nekk tey ba xale bi eh, bokk ci sog mm. na daal wax ko naqari man bi nga ñëwee eh, situation bi noo ko gisee bi naqar ak mm. kii rek ndax ñun biig lañ woo wax na ko sama mag bu góor bi leen nañu noonu woo nekk sama kër nijaay am lu fa xew ñu ne ko lan la mu ne benn dal moo wàcc seen kaw léegi ci lañ jógee maag sama yaay di ñëw mu ne jëru ngeen ñëw ndax foofu journaliste yi dañ faa fees ak police ak dinañ fa xam danañu toog bi ñu xëyee ci la ñu a ñëwee mais guddi gi yëpp nelawuñu daal dañoo fanaane toog ba asamaan set ndax naqar tiis mënoo ko am ànd ak i nelaw bi ñëwee tamit naqaroo ba léegi moo continué am nañ tiis am nañ tiis daal metti mhm. daal moom moo nekk sama xanaa yàlla yërëm ko te mu jëm yàlla na ko gënal fii mu nekk fii mu nekkoon ci àdduna fa mu jëm yàlla na ko dàqal waaw loolu laa mm, la tudd man nday laa tudd nday lay bokk asufaa nday ma bokk nday métti na métti na loolu ndeysaan. kay métti na ba fi métti yam yàlla may ne xolu muñ. métti na dafa mel ni ne ndaw si ak ay soxna si ak ay doomam ñoom faatu. doomam baax waaw waaw ndeysaan. bu déggee témoignage yi. Mhm. nu ñuy waxee da ngay xam ne ne que ndogal la gu metti gu dal seen kaw na. Mhm. waaye ñu ànd ci gëm yàlla. Mhm. ndaxte ñi bokk ak soxna si ñëpp kàddu bu benn la. Mhm. loolu nag boo amee ah doo def lu dul rafet njort ci nit ki nag waaye tiis la gu metti lool lool lool lool tax toog di reer yaag say njaboot. Mhm. amoo ci lu dul. miir ba jékki-jékki rek. daanu ne pensé na kaw. ndeysaan mu doon lu metti te boobu amaana na yéen nga nekkoon doon waxtaan. di enjoy ca bool ba. Eh, ndeysaan. ndekete yow borom bi nee na xaar leen ma ma ñëw. fii ngeen nekk nii di enjoy. fii fii daal di jële fii laay wanee sama yàlla yërëm. amiin. te le xare leen ci aljana gën a kawe. en tout cas de euh, ñaan gi am na solo. metti na tiis na waaye nañu xoolaat sunu chantier yi. dëgg la si parce que wax fa dëgg miir bi daaneelul boppam. bu dee nge ngelaw ak daaneel it am na nu mu doon tabax bi nu mu doon jaar ci yoon ngelaw du ko daaneel. Mhm. Euh, responsabilité yi dafay partage parce que kër gu nekk si ab chantier amaana peut-être fi ngeen war a toog comme te kër a nga chantier da ngeen koy xoolaat. Mhm. parce que à tout moment miir man na sedde bu fekkee euh, poto ya ca waraam am amagu ca bu fekkee poto ya ca war a am amagu ca nga tabax ba tollu fenn fii. Mhm. dafa goo poto yi. donc mur ba dañ koy samp nii rek ay briques yi ñuy tegle kese la waaye dara téyegu ko xaw ma nag ndax kaa noonu la demee wala déet parce que xaw ma ko yor chantier. non noonu la noonu la waa ji wax sax. waaw man fa dañ doon tabax mais taxawalaguñu woon poto yi. sampaguñu poto yi <laughs> sologuñu ko sologuñ ko woon. te ñëpp xam nañ solo poto ci tabax man nag looloo ma jaaxal. ñoom ne nañuy tabaxee ci jamonoy nawet. benn Touba da doon taw. xam nga mi ngi mhm. taw taw yu metti Touba. Mhm. ngay tabax ci moment boo xam te ne nii waroon nga mën a jël mesure de sécurité yëpp xam nga lu tax waroon nga jël mesure de sécurité yëpp mhm. parce que dalay leer ne buy taw mhm. mënoo di tabax bëgg yëf yi mhm. loolu benn ñaareel ba boo demee ba taxawal brique ya la war mooy poto ba da caa war a topp bu ko defee au moins moo mën a am ci lu mu mën a taxaw mais bu loolu amul parce que waa ji mi ngi naan yónnee na xaalis bi pour après sax. bu lii amul woon bu weesoo ñu mën a taxawal poto yi kon loolu day wane ne ci tabax bi waa ji dem na ba dugal mool yéeg yëpp. Mhm. waaye pour taxawal poto ba dafa xaw a jël temps. Mhm. léegi nag jëye ji am na. Hmm. mais ci biir témoignage yi dañ ci wax yoo xam te ni yu am solo la. Mhm. parce que de manière générale la wax ci lu jëm ci wàllum tabax. ñëpp xam nañ ne Sénégal ñi fiy tabax tabax bu jaar yoon dëgg dëgg dëgg bëriwuñ nga lu tax mhm. ndax ñëpp xam nañ ne dëkk bi dangay góor ngay góor góorgóorlu yi taaba taaba yi moo ëpp mhm. da ngay taaba taaba teg benn rangé mhm. dawaat jëndi charge suuf jëndi ciment dégg nga jëndi ay grain yooyu pour jaxase ko ndax situation yu nit ñi di nekkee la mhm. la am bëriwul dund gi euh, euh, nekk seen kanam yenn charge yi nekk seen kanam buñ ko boolee bëgg a tabax day metti metti ba tax na ne tenkem tenkem nañ koy def mhm. mais ci kaw tenkem tenkem googu tamit norme de construction yu war yi ko respecté mi mhm. da ngay jëli benn maçon dégg nga moom teg brique rek la xam xamul lan mooy norme de sécurité. mélange bi ci brique bi lan ak lan lan mooy tax brique bi saf mën a dëgër. ciment bi ciment bi. dosage bi dosage bi. loolu. suñuy limite la suñuy jafe-jafe la mais li bëri li ñu ko yóbbee. moom mooy parce que nit ñi ñu ci bëri pour ñu dem ci architecte problème la parce que dañ la naan. architecte yi dañoo cher. cher faaw ñu architecte yi dañoo cher. waaw wàññi nag léegi nag bu fekkee ne architecte yi tamit dañoo cher. Mm-hmm. parce que ku bëgg lu baax tamit ci es obligé de mettre le prix mais est-ce que tey duñu mën a gën a góorgóorlu ci norme de construction yi ñu xool mm-hmm. yan anam nañ koy mën di taxawalee état bi est-ce que du xool ñi comme courant bi ni ñuy def. muy banqaas boobu nga xam ne ngay jaar pour ñu ñëw xool ba xam courant bi installation yooyu jaar na yoon pour ñu doog la jox li cutuse bu lay mën a may nga mën a am courant directement loolu est-ce que duñ ko def ci lu jëm ci wàllum tabax yi mhm. parce que bu fekkee amoo architecte dafa cher war nañ mën a ut alternative bi nga xam ne day tax nit ki du def rek bu jógee dem jël maçon am mhm. ñu ut ñaari bàyyi peel ak yooyu ñu ñu birigal ko moolal mhm. ko bu pare mu jël di teg di raax di dem sans pour autant mu xam norme de construction yi mhm, surtout loolu problème la beneen mooy ñenn ñi bëggee tax na tamit ñuy tabax ci anam goo xam ne jaarut yoon mhm. parce que da ngay gis fondement kër goo xam ne terrasse nañ ko fonde wala ñu def fondement boo xam ne R plus un la waaj a nekk quatrième mhm. di tabax di dem di tabax di dem parce que bëgg na dajale ay ay appartement pour mën ci gën a am xaalis mhm. te ci tabax bi beneen problème bi mooy du jënd suuf suuf su doy du mhm. jënd ciment su doy da koy takkale noonu noonu noonu noonu noonu ba nekk quatrième mhm. mais su boobaa tamit loolu di nga bëgg am xaalis mais bakkanu doomu aadama itam ñu ngi ci xottu gerte beneen bi mooy li jëm ci wàllum tabax Sénégal lépp dafa cher. parce que ciment bi nga xam ne moom mooy base bi sax ciment bi ci boppam. mais dafa cher Sénégal. Mhm. te xam nga loolu ko indi. moom mooy ñun cimenterie yi fi nekk ñeenti yëpp ay sénégalais moomuñu ko. moo mu ci benn. soixante mille tonnes bi soixante douze mille dafa xoolal dama ne la. ñeenti cimenterie yi fi nekk. ciment du Sahel waa Loyus ñoo ko moom mm-hmm. ay naar ne ciment Dangote Ali Dangote men Nigéria moo ko moom groupe Vicas tubaab yi ñoo moom Sococim quatrième licence bu ñu joxee te yàggul ay marocain nañ ko jox muy groupe Cimaf mais ñooñu. Sénégal amuñu ci dara. ah déet Sénégal xanaa kay lam leen fayee ko rek mooy ay ay ay ay ay impôt yooyu ñu koy fay mais loolu bu amee mais xam nga lan nañu waroon def sa ñëpp xam nañ ne ciment dafa seer Sénégal mais état bi taxawal politique boo xam ne day jëm ci concurrence bi ba tax na ni ñoom ñëpp ils seront ñu wàññi seen prix xam nga nan la jël damay jël deux mille cinq cent milliards teg ko woo Bougane Gueye Dany ne ko ñaata nga yor mhm. ñëwal bokk woo dembaka Ka EDK ne ko ñaata nga yor ñëwal bokk woo Babacar ngoom ñaata nga yor ñëwal bokk Serigne Mboup ñaata nga yor ñëwal bokk Cheikh Cissé ñaata nga yor ñëwal bokk ak keneen ak keneen ñoo xam te ne nii. Mhm. tey mënoon nañ dugal seen xaalis ci li nga xam ne moom mooy cimenterie boo xam ne Sénégal moo koy moom. Mhm. léegi nag Sénégal bu moomee cimenterie am. Mhm. te li ci ëpp lu ñuy utiliser ci wàllum defarum ciment tey Sénégal am na ko. waaye waaye waaye nga foog na ne saaku ciment du du yomb. aywa yomb loolu sax. parce que di doomu doomu Sénégal. dinañ am yërmande gu toll ni mën a wàññi ciment bi de telle sort que yeneen concurrent yi dañuy wàññi ciment bi sédiment ba mu duggee ci mbirum euh, jaayum farine geeg aliment de batay laa jël gaañ saag ba dem na ba vingt deux mille francs ñu koy jaay ñan ñoo ci nekk ay américain ay turc ay libanais français ba moo jaay américain ba dégg mhm. mais il a ñoom ñu dugg ci xeex bi tàmbali mais tey jii nii saag ba dem na boo wàcc même bu seeree ba seer amoon na demoon na foo xam te ne nii ëppoon na ko kon tey ni ñu mën a encourager ay doomu Sénégal ci yenn yi nga xam te nii sa waay dafa war a nekk question de souveraineté loolu moom mooy suñu problème tamit bu ñuy jànkonteel mhm. parce que bu fekkee ne ni ñun maîtriser wuñu dara banque assurance maîtriser wuñ ko ay jàmbur ko moom banque fii nii amul bu ñu la mën a wax ne la banque bu mag la Sénégal moo ko moom. Mhm. mais yooyu dafa bokk ci tey lii gën a tax sénégalais bi di mën di góorgóorlu di rey boppam te mën a tënku tamit ci li nga xam ne mooy wàllum yoon ci lépp li nga xam te nii da koy dugg. parce que politique la yoo xam te nii dañ ko war a encourager ci mim réew. en tout cas dal euh, boo gisee Fofana am na ñu baree bari ñu ngi seen terrain terrain yaa ngi nelaw fi mu nekk nii mun ñu koo tabax parce que amuñu ko. tonne ciment cher na cher goo xam ne foo ko natt wees na ko béton dikkagul fay fay maçon bi ñëwagul dafa doy waar gis nga li xew Touba mun naa xew fu ne de nan ko nan ko bàyyi xel mën na xew fu ne mais kër yi daan yi kenn daa xam parce que parce que comme wax léegi dañuy dañuy dañuy dañuy kocc koccal dañuy kocc koccal nànk-nànk ndax yaay gis ku commencé tabax du ne nag moom foofu mhm. mais dañuy gis de ku ku commencé tabax dooleem demul noonu day jënd benn tonne ciment ñu mool jën jënd nangam ñu defar defar bu ko defee waaju commencé bu tàmbalee ba xaajal mu ne ko jeexal na ñu taxaw yu maa nel tabax yëkkat ca kaw poto yi nga xam ne ñoo ko war a ak ngelaw lii ak nawet bi sampoo ko mhm. ku wax ni kooku amoon na ko dafa doy waar Euh, kon nag euh, yéeme na yéeme goo xam foog nii tabax nanu bàyyi xel bu baax a baax ka ni du koo gis du alaaji mbay karim boo gis jox ko mu tabaxal la non dëgg la nañ ci bàyyi xel bu baax dafa am ay expert ñoo xam ne expert yoo xam ñooy ñooy ñoom ñooy saytu loolu tabax mooy seen liggéey te tabax boo mënti gis dafa am durée de vie da am durée de vie la wala nu mu ci manti doon dafa am durée de vie seulement nag au Sénégal mhm. vie bu jotee mhm. da ngay gis ku jël kër gi ne da ngay yokk ay poto ne da ngay ñëpp ñëbalaat mhm. xolliwaat daal bi ndax mi ngi ruus di daal di koy tafaat ndax mi ngi taw wala nga gis koo xam ne dalu euh, fondement bi ñu ko defal pour euh, war supporter wul état yi yaari néeg la mu def ñu ne dañ koy renforcer yokkaat si deux étages loolu buy surux sa kaw da lay nañ ci bàyyi xel bu baax euh, commercial dafa dafa dikk wala circulation mais dama ne la dama ne ñu dem ne mooy borom kër gi. waaw nañ dem machine ñu dem machine doog yaay booy maa la yekkal bool bi si tam xarit bi. ah waaye sama goro kontaan naa ci teranga gi. maam xoolal maa la indil sa meew l'écran. <laughs> ah gone gi xam nga noo may neexalee de. <laughs> xarit bi seen brique de lait l'écran meewu nag piir bu neex bi bi ñu dooleel ak calcium ak protéine moo leen di gunge si boo leen di yekkal ñi ngeen bëgg ngir tam xaritu jàmm Ashura Mubarak l'écran firndeel mbëggeel bi gën a wóor Association Entre Aides est une association dûment formée avec des comptes certifiés qui lutte contre les cancers des enfants au Sénégal plusieurs fois par semaine. Depuis 2021, nous leur payons ordonnance, analyse, radiologie et scanner, hospitalisation, biopsie et chirurgie. Nous lançons cet appel d'urgence dû à la rareté des dons. L'heure est grave. S'il vous plaît, pour que chacun puisse faire un don au 77 129 33 67 77 129 33 67. par Wave ou Orange Money ou par virement bancaire domicilié à la SGBS ou check ou le lien GoFundMe association entre aide nga xam ni depuis 2021 dafay jàppale xale yi am cancer di leen jëndal ordonnance di leen fayal analyse radiologie scanner hospitalisation biopsie ak chirurgie mooy lancer appel d'urgence ndaxte kat yëf yi dafa jàmp ngir ñu mën a jàppale xale yi bu fekkee ni mën nga ko nga jàppale ñu par Wave wala Orange Money ci 77 129 33 67 am nañu tamit compte bancaire domicilié ci SGBS wala nga def benn chèque wala nga dem ci lien bi GoFundMe entre Aide Sénégal vous remercie d'avance moi je suis engagé et vous qu'attendez-vous OneXBet. Faites un pari, cherchez sur le web et obtenez l'application. Oui, c'est aussi simple que ça. Allez sur onexbet.sn, pariez et gagnez gros. Utilisez le code promo 221 radio pour obtenir un bonus de 200%. OneXBet, c'est très simple. Pariez dans votre poche. OneXBet, la compagnie bookmaker. Jeu autorisé par la LONAS aux plus de 18 ans. yow kay jox ma foofu benn tampiko tampiko mooy sama jus préféré amul lu gën a ne tampiko ay fruits naturels lañ ko parfum citrus wala mangue yëpp a neex ma benn tampiko bu la neexee laal sa benn sachet mais am na bouteille bu ndaw ak tampiko tampiko nga pare si wàññi bi nga demee. kon yow vrai défaillant la. Galaxy A yu bees yi dañoo gën a metti nii

mots. Orange Monnaie est un service de Finance Mobile Sénégal. Orange Monnaie. Chez nous, c'est chez vous. De la douceur dans le regard. Fier de notre humilité. Chez nous, vous êtes toujours les bienvenus. Chez nous, c'est pour vous. Nous, c'est vous. Et chez nous, Ce n'est pas plus loin qu'ici et là-bas. L'eau est une voix que l'on entend partout. L'eau, c'est la vie. Chez nous, c'est chez vous. Mémoire palpitante de rire. Goutte de bonheur désaltérante. Quand s'écoulent les mélodies des souvenirs d'enfance. Une eau et des histoires. Pour vous, pour le Sénégal, pour tous. La Casamanceaise, notre histoire de la terre à l'eau. suñu àndandoo di Coca-Cola Fanta ak Sprite dellu si nañu ak seen cafka yu doy waar ngir waa kër gi gan yi am di jàmb yi ak xarit yi jëfandikoo leen Coca-Cola Fanta ak Sprite ci bouteille yu 30 centilitres ak bu bees 250 waaw waaw juróom fukk dong ngir bànneex ak feexaay bu amul ab Coca-Cola daal muy gëneel bu ànd ak bànneex. dañuy dem wala ñu dem ci beneen bi. ay ci xanaa rek di fàttali ne kon fii ci réewum euh, Sénégal ah. Mhm. ñëwul. ah ñëwul acca. ñëwuma. Ah, maa ngi ci biir. ñëwul ñëwul ñëwul. ñëwul. aja kon dañ da dañuy doxal ah. Euh, nanu wàllum tabax bi nañu xoolaat bu baax. Ah. nañu nañu moytu parce que tamit fii ngay gis si réewum Sénégal nga xam ne peut-être dañ la war a jox autorisation pour construire yow ngay laaxatu si suuf di tabax. mais ñu bari xamuñu ko nag mbay. norme dosage yi lii nga war a respecté yow ngay def dosage bala neex. Mm-hmm. <laughs> Hmm? fer bi nga war a utiliser pour fondation yow nga def fondement bu la neex. bu a yomb. ëllëg mu màbb nga taxawul. di jàmbat nanu moytu. xam nga xam nga lu waral loolu manque d'osage. nanu moytu yaa gis maçon boo xam ni da lay laaj ñaari tonnes wala eh, eh, kër gi la ko war a tabax. Mhm. da ciy féq dara. moo tax maçon bi ci teq wala borom kër gi maçon bi ci boppam. man ah, dal na ma ba tey mi ngi mi ngi lor doomi jàmbur kees bi ñu koy tabax waa dafa yéeme daal. beneen bi du fi ah, xaj. ko ah, ah wala wala ñu dem ci directement parce que mbirum kër la rek. mbirum kër la rek. soxna si ma nga biti réew. lijjanti ba waram këram mhm. am ku mu waxaaleel ba génne xaalis waa ji di ko làkk daa daa am nay at saa bu ñëwee di laaj kër daanaka fondage ki ab chantier la fa fekk te dañ ne ko woon caabi lañ lay jox boo xam ne kër gu yemb ba pare ñu déglu ko chimère daal di ñëw problème bi mi ngi ni dañoo dama jënd kër kër boo xamante ne Euh, quarante cinq millions la F4 bi ma ko jëndee nag euh, maa ngi ko jëndee ci promoteur boo xamante ne mi ngi tudd Ecosic maa ngi jënd kër gi maa ngi def contrat bi en deux mille vingt boobu laa def contrat bi maa ngi ko def juin deux mille vingt léegi nag depuis boobu ba tey ñu ne ma euh, juin deux mille vingt et la kër gi di pare léegi yàlla def corona ñëw na ñu ne ma loolu moom moo xaw yéexal seen comprendre leen rek ndax corona bi partout la dans le monde mais deux mille vingt et un bi ma toog ba deux mille vingt deux ñu may layal ay ciment ay kii a feebar ay kii baay bàyyi seen technicien expert bi dafa bàyyi xawma ma dafa am ak ñoom pour chaque jour ak lay ma toogaat ba deux mille vingt trois bi tamit juin euh, mais bi ma ñëw ñëw naa pour finaliser ak ñoom euh, deux mille vingt et jox naa ko vingt neuf deux mille vingt deux bi bi ma ñëwee tamit même bu dee ñëwuma jox jox ñu ma kër tamit joxaat ne leen trente trois millions bi ma ñëwee mais bi nag ci laa leen joxe trois millions stade trois millions moo ci desoon ñu ne ma quatre millions sax problème ma fay neuf million tamit suuf bi fay notaire un million un million quatre vingt jox euh, jox ko teg ko ci loxo maître yum avocat moo leen woo ne leen kii finaliser leen ak moom ci la may soog a yóbbu ci notaire ñu finaliser mais kër moom su ma demee vingt deux mille vingt et un tabax bi fu mu yemoon ba tey foofu la yem su ma ñëwee rek dañuy dugal maçon raax benn côté su ma ñibbee Allemagne rek. kër gi jeex na loolu la. d' accord lii de laa ci am. d' accord madame d' accord léegi yow euh, maanaam euh, kër gu pare nga doon jënd wala terrain nga ñu tabaxal la wala. déedéet déedéet kër gu pare laa jëndoon ci ci ci contrat bi kër gu pare lañ ma waroon a jox. kër gu pare lañ la waroon a jaay. waaw léegi finalement jaay ñu la kër gu pare lañ la jox. moom kay moom kër <laughs> moom kay liñ ma jox a ngi noonu ay bâtiment lañ ma jox bâtiment bu wut maa ngi nii di daw topp naa si léegi trois ans. d' accord euh, euh, supposons da nga waxaale ak ak ak ak man ma war la jaay benn benn kër gu pare euh, terrain bi si bokk ak kër gi yëpp caabi rek lañ lay jox. waaw. Oh, léegi loolu loolu mën nga ñëw ci explication. demeewul noonu. nga ñëw ci par detay affaire bi naka la naka la ñëwee ba foofu noonu. bi nii man damaa toog Allemagne nekkuma woon Sénégal man Allemagne laay dund. Mhm. maa ngi fii Allemagne dañoo ñëw ne ñoom dañuy jaay ay kër salon la ñuy def. Mhm. léegi nag bi mu ñëwee mm, fii ci Allemagne après ñu ne dañuy jaay kër ñii ne dañuy lebale ñii dañuy lii ku nekk ne day def lii moom nag yàlla def nag ndeysaan ñoom la ñoom laa waxtaanal ma waxtaan ak ñoom jël seen numéro en deux mille quinze. ba ma jëlee seen numéro am ak contact deux mille dix ba fii may waxal deux mille vingt ma ne ko aw ma xaalis waaye bu ma amee xaalis incha allah dinaa ñëw deux mille vingt nag bi ma commencé di liggéey ma ne ko léegi pare naa jàng léegi moom maa ngi liggéey mën naa jënd mu ma ma ne ko kër gu pare laa bëgg mu ne ma waaw am na bu trente millions am na bu quarante cinq millions am na bu soixante millions am na bu soixante cinq ma jël bu quarante cinq millions bi la demee après nag bi ma demee euh, deux mille vingt bi ngay jël kër gi maanaam da nga ko gis ci photo wala da nga ñëw en personne nga gis ko nii i déedéet dama ko gis ci photo ñëwuma en nga gis benn kër boo xamante ne defar nañ ko ba pare ba mu pare lépp pare. waaw dane wax dëgg yàlla daf ma yónnee ay photo ci portable ne ma nii lay kër di demee bu paree. photo yi du photo kër gu pare waaye ay photo nii rek image yoo xamante ne ni xayma ko ne ma kër gi su paree nii lay mel dam ñoo am terrain yoo xamante ne ñun dañ ko war a tabax ba mu jeex ba pare ñu koy jaay ma ne ko waaw ma am am naa ci intérêt mu ne ma waaw ma ne ma nag comme yow la te da nga nekk fële ma ne ko léegi boo bëgg mu ne ma réservation cent mille la ma yónnee ko réservation cent mille ci Western Union mun naa laa yónnee këyit boobu yëpp après mu réserver ma ma ne ko nan lay contrat yi di demee mu ne ma danga may yónnee comme ça moitié xaalis bi soo ma ko yónnee su kër gi pare nga jox ma moitié xaalis bi après nga fay terrain bi su kër gi pare buñ demee ba tabax yëpp ma xam ne yow maa ngi la dencal kër gi ma def loolu li ma wax waaye nag maa ngi ciy daw malheureusement trois ans. yow fu mu nekk nii actuellement nii ngay wax ak man jox nga ko xaalis bi li ngeen waxante hmm. woon fay naa ba fay suuf bi fay lépp kayit yëpp mi ngi ci euh, sa sa mbokk journaliste boobu noonu soo ma permettre tam mën naa tudd turam Mame Mbaye Niang jox naa ko ba jox ko kayit yëpp kayitu notaire kayitu trente six millions bi wan bâtiment bi fay notaire fay taxe notaire lépp lépp lépp def naa ko amul xolal benn un euro sax manqué wu ci te bokkul sax ak li ma def nag faux plafond yee grillage yi yooyu yëpp ak fiilu courant yee dugal ndox yooyu yëpp nag sama xaalis extra la bokkul ak quarante cinq millions yi. kon fu mu nekk nii ak euh, euh, ba def loolu jot nga sa jotuma dara. damaa jot sax euh, amul sax kër amul karo amul peinture amul dara. kon yo bâtiment bâtiment lañ la jox yow yaa koy eggali actuellement ak ses propres moyens. non non da du ma laal man kay dama si topp bâtiment nu ma koy jotee ak samay propres moyens. ñoom kay damay ñëw foofu dugg. li tax ma wax la loolu mooy da nga ne yow yaa yow yaa def ndox bi ak plafond bi sa xaalisu bopp moo tax ma yaakaar ne ndax da am accès si gi. non non non non xam nga dama ñëw ba ci digg ba man ma defa ni kër gu pare lañ may jox mu ne ma waaw kër gi de faux plafond yi bokk ci soo ko bëggee dafa xew léegi nga def ko ma ne ah man tam ma joxaat ko xaalis boobu mu joxaat ma ay këyit ne ma lii nii lañ koy defee ma fay loolu bokkul mu ne ma bokkul ci trente six millions mu ñëwaat ne ma grillage pour nga denc sécurité sa kër bokkul ci ci trente six millions ma joxaat ko awaat xaalis bokkul. léegi léegi mu ne ma fiilu courant yi bokku ci ma joxaat ko. <laughs> madame te yow loolu yëpp maanaam amoo kenn koo xamante ne mi ngi lay superviser sa liggéey bi yow da ngay da moom da laaj rek ah, xaalis nga jox ko. Ah, kay am naa ñaari nit kenn ki sax moom mooy président PCA bu bu AIS ASP ASP gis nga seen président bi PCA bi kooku moom moo defar kër gi mooy supervisé moo signé contrat bi moo waxanteeg ñoom lépp kilifa kay moo téye kër gi xanaa loolu moom <laughs> tur laa jox de boo xam ne koo xam day liggéey moom président ASP boo leen demee moom am boobu moom moo signé sax contrat bi moom moo war a supervisé mooy dem foofu mooy wax ak ñoom mooy def le sama umpaañ moo doon versé xaalis bi mbirum kër la ba tey rek. doon na war mbirum kër la ba tey. donc dañoo dagg tur bi nag yow promoteur bi. Mhm. waaw beneen yoontee bu ndaw si ñëwee dinañ génne tur bi. ndax daa metti nag euh, fii sa xaalis. encaissé sa xaalis defal la ñu luubal ko dafa metti lool. dafa metti tugal nag ñu muy dal a ah, metti na lool waay. nañ ci nañ nañ ci bàyyi xel bu baax ay ay ay. bu dee góor ñi moodu la bu dee jigéen ñu ne ay faatu faatu. faatu faatu jigéen nag. yow ku jigéen ki boo ko dollul koy ngir yàlla. 45 millions wala lu ko jege. nga dugal ko di laaj kër boo xam ne caabi lañ lay jox saa boo ñëwee fekk chantier dina doy a dee ak sedd bële nañ ci nañ bàyyi xel bu baax laata ñuy ñaan nag uh, foofa na. Mm. Uh, ñi nga xam ne ñoo yor chantier yi ñi nga xam ne ñooy tabax uh, layus. du Sénégal waaw groupe Leuz waaw. waaw nee nañ maam nee nañ ma ay ay sénégalais nañ. wolof dëgg la ñuy làkk de. Eh, eh. Ah, ñoo ma gën a dégg wolof dëgg dëgg la ñuy làkk. <laughs> Samir <laughs> xam nga yow dem si yàlla si Samir Abourisque bi nekkoon Tëngéej. moo ma gën a moo ma gën a nekk moo ma gën a nekk ah, Rufisque quoi moom dégg la. dañuy xees pecc kay na mais xam nga. ngay jàpp ne comme seeni maam limaa nañ jóge rek. alors ki ñii di tabax. ñëpp xam nañ ay sénégalais pire nañ na. am na ay dégg olof mooy ki. ki moom tamit benn bërëb fii boo xam ne bu siw. Mm-hmm. moom it waaw xombol la dëkk te pourtant Sénégal la naa. non Sénégal ku sa maam juddu fa mu juddoo nag yow nga juddoo fa nag wax fa dëgg. foofu c'est le milieu qui détermine l'homme la philosophe bi di wax. alors ñi di tabax bu leen fàtte ne mboolem corps de contrôle am na fi. non dëgg la fii yow di tabax kër am na lu war a contrôler yi du jeex. ki di tabax étage am na lu ko war a contrôler. autorisation ba nga war a am sax ngir tabax am na fi am na structure yi nga xam ne ñoo ko DSCOS mi mm-hmm. donc ñooñu bu ñu defee seen liggéey peut-être nañ mucc. est-ce que ñu ngi def seen liggéey. waaw peut-être loolu mooy laaj bi. mais ñoom ñëpp code de contrôle bu doon contrôler ña nga xam ne ñoo war a saytu autorisation yéex yooyu yëpp bu fekkoon kuy tabax jaar nga fa war a mën a jaar ñoom ñu jaarax yow fa nga war a jaar daakaar naa ne tabax du màbb wala hmm. bii màbb it hmm. du ciment bu saful moo koy màbbal wala du fer bu ñu war a utiliser moom moo koy moo koy màbbal leneen a koy màbbal Euh, donc nañ ci bàyyi xel ñi war a contrôler nañu respecté liggéey bi mais personnel dañ ngi am problème personnel problème logistique doy war sa way ba pare fi war a a garaaw mooy tabax yi ak xeetu da ngay jaaxle da dëkk bi buñ la nee amul da ngay jaaxle bu fekkee nit ki daal tàmbali na ñi ko war a contrôler kon nii kat liggéey bi jaar na yoon mais corruption dañ koy arrêté bu fekkee rek respecté wul noonu yi ñu arrêté ko voilà. mu ci bàyyi xel baax nawet la ñu nekk te tabax yi dafay guus. waaw tabax nawet sax daa yomb. daanu daanu day gaaw. waaw da tabax muy taw. wala nga tabax ba commencé foog ci ne. wala mool ba yaakaar yaa ci ne borom taw mool yëpp. bi taw kenn du fa bu ko defee ñun ñoo fi jaaroon kon. ñaanal foofu a suba incha allah incha allah. ma CKM radio. CKM. la yekkal bool bi si tamxarit bi. ah waay sama goro kontaan naa ci teranga gi. maam xoolal maa indil sa meew l'écran. <laughs> ah gi xam nga noo may neexalee <laughs> xarit bi seen brique doli lait l'écran meewu nag piir bu neex bi bi ñu dooleel ak calcium ak protéine moo leen di gunge si boo leen di yekkal ñi ngeen bëgg ngir tam xaritu jàmm Ashura Mubarak l'écran firndeel mbëggeel bi gën a wóor